السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي نيغ لي نيت لين زيارة سين بوك محمد الأمين سال آه، ما نيوغ يين سي بن ليرال ديكو يوبنتي سيدنا عمر سي ا آه، بوغوما نك واخكا با باري ني سين لامين دنج كو تونتو سي انترنت بي ولا سين لامين دنج كو تليفوني ساغاكو ولا سين لامين دنج كو خاسكو ولا سين لامين دنيو خلوك موم benn amu ci kenn to gisuma tontu ci yoon internet bi gisuma tontu ci YouTube gisuma tontu fenn li ma gis daal mooy ñeenti gàmm yi ma limoon ni yàlla amu fa yonent bi amu fa ci vidéo yi ma yónnee yu bokk ca gàmm googa yooyu day euh, dama caa boole woon champ champ de course mais gannaaw gi am ñoo xamni dañ ma maa ay vidéo no ay audio la jikko jot ñu ni sëñ Lamine day euh xeyna maqta bam jot lam jot moy wax ci politique ak wax ci lenen waye yónnee wuñ ko fa nga xam si fa lañuy ñuy jàngalee di fa wax ay ay alxuraan ak di fa wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam di may yónnee maqta boo xam ni koo déglu wax dëgg da maanaam da nga ci dégg loo xam ni jar na déplacé wu dem fekki ji ko keneen yónnee ma te ñi ma yónnee yëpp bokk kenn ku nekk la nga ma yónnee bokkut ak la ma sa morom yónnee ma ni nag kon naa delluwaat ci ñeenti vidéo yi ma jotoon ma vérifié waat bu jëree dellu gannaaw ma dellu gannaaw ma vérifié bu li ma waxoon ci Ahmed Khalifa Niass li ma ci rectifier rek mooy damaa def woon ni kawlax la mais du kawlax waaye la ma ca waxoon ba ma seetaanee lépp lu yu gën a pur laa gis boo xam ni na ma ko waxee woon la amee bu dee Tiwaawan kër Aziz Ndiaye lafa xewoon dama ne naa delluwaat parce que boo demee loolu rek la woon mais ba ma demee di dégluwaat di complément yi lu gën a pire laa gis euh, kër sëñ Abbas ba ma demee di vérifier waat di delluwaat di gëstu di xool la ma gisoon dara wàññi ca may nag comme dama cee boole woon Saadi Course ci Saadi Course yónnee nañ ma yónnee nañ ma ay maqaate ay vidéo yoo xam ne si ku bokkut ak bokkut ak la ma la ma jotoon nga xam ne yooyu nit mën na jaa déglu jariñu ca ay maanaam ay ay alquraan nga ca yoo xam ne si nit mën na caa dégg dara wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa ma nga ca yoo xam nit mën na caa dégg dara waxu tawxiid ma nga cell boo xam ne si nit mën na caa dégg dara kon bu loolu amee dama naan kon damay jéggulu boole gi ma ci boole woon champ de course gannaaw bi ñu ma yónnee yoo xam ne bokkut ak vidéo yooyu ba nga xam ne si moom laa jotoon ba loolu moo waraloon may delluwaat di xoolaat yeneen vidéo yi waaye yeneen yi ci des la ma ca waxoon ba léegi moom laa ciy wax mais nag bu bu ma kon continuer di ci boole Sadikos te ñu yónnee ma lii kon yàlla taxatul may wax kon leneen xuloo moo tax may wax wala dàgg sante wala dara leeral gi nag yàlla moo tax ma di ko wax dégguma benn tontu dégguma benn saara dégguma benn wax bu ñaaw man dégguma ko am naa day benn benn benn euh, xasida buñ ma yónnee boo xam ne bu ñuy taggee sëñ Moustapha boole ci ay audio boobu dama ni duma déglu audio yi booba dama ni xëy na kii kat maanaam ku bëgg a tontu la wala ku bëgg xuloo audio yooyu de xasida ba de garde naa ko waaye déglu ma audio yi lu weesu loolu nag dégguma loo xam ni si dama naan lii ab xuloo la wala lii ab tontu la mais nag li ma jot لما جات تيني وخني آه، آه، مقطع بي كت سنلمين مقطع بي سنلمين نيموتي نيموتي آه، وخي دفا جيسو لي سنلمين خنا جيسو لي كنن سنلمين خنا جيسو لي كنن سنلمين خنا جيسو لي تيو يب دي اين جارين بمو كونتيني نان سادي كورس تيلا بوك كوكو لنن تخمي وخ لدول لدول يالا كمان بما يوخ يالا تخمي وخ waaw ci Sénégal nii ñi koy defee dafa araam waaye nag màggal juddu yonent bi sallallahu am na loolu maanaam dajale nit yi di leen wax ci yonent bi sallallahu di leen wax euh, ci ay ay alquran di leen delloo ci yàlla kooku boo ko defee ci guddi gàmm kenn du ni loolu bi daal li daal la amoon lu ma ci leer ñaan yàlla may ñu dégg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa